moom nee na tey euh, acteur ñooñu noonu ñoo mu wax ñoom ñoo décidé fermeture université mm-hmm. ñooñu il continue à percevoir leur salaire <coughs> ñun ay étudiants lañ lan la ñuy laaj mooy jàng campus social am na ay saccage yu ñu fa note certes mais saccage yooyu noonu warul mun a empêcher université tëj durant tout ce temps loolu mooy réalité bi mm-hmm. moom nee ne un tiers boo xoolee si étudiants yi presque logé wu ñu biir campus man jàpp naa ne même bu dee sax dix étudiants sax ñu ko xeebal te tamit il faut qu'on qu'on sache quelque chose c'est-à-dire am na ñu bëri bëgg nañ loger biir campus mais amuñu accès campus parce que ci critère de codification yi ak critère d'attribution de logement yi hmm. amuñu accès foofu ñu si ëpp ñu si bëri tamit dañuy jël ay appartement seen mairie seen municipalité yi dañ leen di fayal ay appartement ci biti pour ñu mën a loger donc tey étudiants yi mun naa ne la majeure partie des étudiants bëgg nañ am accès ci campus social. mais critères yi moo métti. critères yi moom moo métti te tey boo xam ne xëy na mun nañ ko waxtaanee. pour ñu changer ko mu a yomb ci critères yi moom moo métti mais des milliers et des milliers d'étudiants logent là ma jël tamit di nuyu de passage samay camarades handicapés yi. Hmm. handicapés yi fag boo dem y bu beaucoup d'handicapés. handicapés yi dañoo bëri tellement te tamit ñooñu campus social la ñu yaakaar pour loger. Hmm. tey bu ñu wax xoolee ñu ne tey dañuy def cours en présentiel campus pédagogique mooy ñëkk ibbi que campus social étudiants yi dem leen jàngi mais égalité de chances du am foofu noonu tey ñoo ñu noonu tamit handicapé yooyu noonu nga xamante ne ay étudiants lañ dañ leen war a tenir en compte mhm. tey ñoo ñu noonu nga jël tamit aspect tey étudiants yi ñu si ëpp seen bourse lañ yaakaar mhm. ñun bañ dañuy da ngay da ngay dem rang resto pour añ wala pour reer nga romb fa say mbokk étudiants yu naan may ma ticket grand ah tey ñooñu noonu tey tey ñooñu noonu tey nga xamante ni ba campus doon tijji sax mi mois bi seen stock ticket day jeex yoratuñu dañuy dem di yalwaan tey bu ñu leen nee cours en ñu war a xool seen transport bu ñuy waree jàngisee. Euh, seen restauration yéen a ngi fay seen bourse yi moom laa ñooñu noonu tey. tey am nañ ñi nga xamante ni ñoo ngi logé. tous les étudiants ne sont pas tous les étudiants ne sont pas mais campus social ba muy tijji. ba dara xewulee. am na ñoo xamante ni mi mois seen stock ticket day jeex parce que bourse yi mënul subvenir à seen besoin mm. tey bu ñooñu noonu tey nga nar leen a woo da nga daan dem resto nit yi di la yalwaan say mbokk étudiant loolu day dawloo sa yaram waxal ñaan ticket waaw ñi lay ñaan am jom nag ñi nga xam ne dañuy léegi nag tey étudiant yooyu noonu tey étudiant yooyu noonu tey ñu si ëpp tey boo xoolee ñoom ñoo war a réglé seen transport mm-hmm. ñii nga xamante ni tey ñoo ngi ñëw nañ ñi héberger leen si yenn amicale locale yi ñu war a jugee foofu noonu ay wakaam wala feneen nga nar a génnee si sa poche pour lijjanti sa transport nga nar a génnee si sa poche pour sa restauration loolu noonu. sa métti waaw day métti c'est très difficile. foo campus social ubbi daal. foo campus social